yu bëre yu ñuy nemmeeku biir Dakar doon na li faral di gàllankoor bu baax yenn bu liggéeykaay yi. taw bi nag moom ah tu as vu depuis ce matin j'ai fait que six couverts six couverts lañ def il est midi mais lii yëfu yàlla la dañuy ñaan suñu borom mu nekk luy romb lu am ne mu ànd ak xéewal mais en tout cas. metti na daal. ñàkkum client bi ci tukkee. doon lii dina saxal bu baax. comme comme yii la bërëb bu liggéeykaay. suñu chiffre d'affaires dafay wàcc fayeeku du ñu am fay boobu noonu parce que entreprise bi bu fekkee noonu lay continuer day dem ba un moment donné mu nekk en faillite. nañu toppatoo wéy rigol ya nekk ci yenn bërëb. mooy waral li ni mel. tali yëpp dafa fat yoon yi boo ko xoolee nii yëpp daa fat kenn defaru ko xam nga chaque at dañ doon ñëw di di di canal yi pour ndox mi jàll mais ren kenn defu ko waaw war nañ ci dimbali rek dindi ñu affaire canal bi ndax ndox mi mën a dem. nawet bi yëpp nii lañ koy dundee ba ba muy jeex moom nii rek waaw nii daal lañ ciy dundee moom nañ ci bi daal moom. mu mën a dem ndox mi mën a dem ñu bu baax. saa yu nawet jotee liggéey yu bëre de daal di tàggatémbe ñii di liggéey ci yi la bërëb di artu njiit yi ngir ñu wuti saafara ci seen i mbë